te di ñaan ngeen nangul nu sunu ziyaare ci yéen ñuy dellu di sant yàlla moom mi nu may nu fekke may nu nu tal te mu wax la in shakartum la azidannakum muy baatu bu ngeen ma sante ma dolli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 ñu koy ñaan mu nangul nu sunu nekk taalibe nangul nu sunu teggin nangul nu sunu tarbiya ci barke fa tabaarakallaahu mu mel ni jullit bi amul lu dul jamono ju nekk rek muy bàyyi xel borom waaye itam borom bi bind na monde shahada pour mu nekk béréb bu seede ci nit ki waaye itam mu bind monde xayb pour mu nekk béréb bu yëg-yëg ci ruuxaani yu su ko defee kenn ku nekk la mu am ci yàlla rek mu jël ko ku ci nekk la mu am ci yàlla mu jël ko ndax yàlla justesse am toll na ca moo tax mu dajale ruux yi wax leen alastu bi rabbikum daal di leen déglu bi mu leen dégloo mu indi tontu bi ci xaalu balaa su ko defee nag muy pacte bi nga xam ni moo war a dox diggante nit ki ak borom bi kenn ku nekk signé na pacte boobu ci baatu xaalu balaa li des nag mooy ñëw ci bondu shahada respecter sa signature walla bañ ko respecter yàlla dogal nag fi àdduna toll ñu di ko tuddee axiru zaman muy bërëb boo xam ni jamono ju fa àdduna tolloo rekk dafay naq di mucc ndax ñaari yoon ñoo mës di exister benn bi di hizbullahi benn bi di hizbu shayatin su ko defee ñi taxaw ci parti yàlla bés bu nekk ñi ngi yesal seen pas-pas di bàyyi xel seen borom di bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi taxaw ci parti iblis bés bu nekk ña ngay xool nañu xeexee ñu nekk ci parti yàlla yàlla bàyyi leen nag ci monde shahada ku ci nekk rek mu nattu la ndax yàlla dafay nattu jullit léeg-léeg yéeféer dara dal ko ñun yàlla daf ko nattu fekk na yàlla du nattu yéeféer dafay mbugal yéeféer yéeféer bu ko dara dalee mooy yàlla daf koy mbugal ci àdduna ba noppi di ko xaar ci àllaaxira yàlla bu jële ku ko gëmul may ka alal du daf ko may daf ko jay waaw mais yàlla jullit lay natt loolu tax jullit war a bàyyi xel kóllëre gi nga xam ni moom lay doxal ci digganteem ak borom parce que nit ñi bëgg nañu yàlla bëgg nañu am martaba ci yàlla sopp nañu yonent bi fonk nañu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif waaye lenn lu leen xóori rek ñu defe ni daanako seen mbir yàqut te xamuñu ni kenn mënul àgg ci yàlla lu dul ni yàlla natt bu mag bu mu indi teg la beneen bu gën a mag boobu yonent bi moo ci jiitu te moo gën ñëpp yonent bi moo ci jiitu te moo gën ñëpp moo tax nit bu nekkee ci yoonu zikr di wut àgg ci yàlla yàlla dina ko indil natt bu nekk yàlla nag moo xam ne mu lay nattoo bu xamee ni yow da ragal ñàkk mu teg la ñàkk bu xamee ni danga ragal ku la diingat mu mu indi ñu lay diingat rek waaw bu xamee ni danga ragal tumranke mu def la nga bu xamee ni da nga ragal feebar mu teg la a nga feebar su ko defee benn boo ci jàmbat jàmbataat ko rek sa martaba mi ngi wàññeeku loolu lu jar bi bàyyi xel lu jar di bàyyi xel la ndax loolu ak yoonu yàlla ñoo ànd su ko defee nag bàyyi xel sa bopp ci jamono yu ñu toll mooy bàyyi xel sa zikr ndax gis nga li iblis di am am doole yépp ñu demee ba aaxiru zaman moom pouvoir ca lay ëppati ndax dootul yàq xel waaye rox lay yàq ndax iblis la mu mënoon bu njëkk ba mooy ñëw dend ak nit ki jamono ju nekk muy yàq xel yàq xelu nit ki ba nit ki dem sax di poser boppam question ndax réellement dëgg-dëgg yàlla am na wala ndax réellement dëgg-dëgg jaamu ji muy sonn nii ci yàlla ndax jaroon na ko lépp ci liggéeyu iblis la waaye bu demee ba yàq ruuxu nit ki nag imaan bi lay rocc ci moom su ko defee nit ki dina des ci diinal islaam di ci wax di ci jëf waaye fekk na ngëmam lan dootul enregistré ca kaw te mooy li Serigne Cheikh doon wax ni bari na ko yoon micro bari coow fekk na boo demee xay bu jàppewuñ ko sax ku gëm yàlla waaw xam nga loolu day jaaxal nit su boobaa nit ki lu ko neex lay wax ci diini waaye lu ko neex it lay dogal ci diini waaw nit ñi yaakaar ni ci yoon la nekk fekk na Iblis récupéré na ruux ba su récupéré ruux ba la mu cay soppi mooy la ca nekkoon imaan ci biir nga xam ni mooy tax ñu xam ne jullit loolu lay dindi lu nit ki sañul woon rek mu sañ looloo tax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif fexe ba yëg ni comme axiru zaman jamono ju metti la mu tënk ay taalibeem ci zikr moo tax Cheikh li mu warloo woon ak ñun yëpp def na li des mooy ñun la ñu warloo ak moom moom la mu warloo woon ak ñun def na ko ndax li ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox nga xam ni benn loxo jotewu ci woon muy tarixa tijaan yi fexe na ba indi ka ba ku jël wér du ku nekk am ci ndigal rek mën a toog ci malade wasif mais dañuy wax ni nit lu mu miin day dem ba loolu dootu ko jàppee lu rëy waaye ku xool tarixa tijaniya ak fa mu jaar ak ca réalité ba mu jaar ndax boo demee ci ñi nga xam ni dañu leen di delloosi ci côté surtout yonent bi nga xam ni tey dañuy wax ni ministre na topp seen lumière ñu ràññee ci ñaar ñu diriger tariqa kenn ki di Cheikh Abdul Qadir Jeylaani ci tariqa Xadiriya kenn ki di Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Cherif ci tariqa Tijaniya waaye boo demee ci Cheikh Abdul Qadir Jeylaani daf lay wax ni moom même tariqaam sax ci loxo malaaka Jibril la jaar kooku mi ngi ci livre tariqa Xadiriya daf la koy wax. waaye Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani Chérif nga gis ni tariqa bi amul intermédiaire ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ni yàlla jëlee lumière ba ca tijaniyatul uzna la ko teg ci loxo yonent bi yonent bi teg ci loxo kon lii nga xam ni jamono ju nekk ñu ngi koy wër muy malaan wazifa malaan yi ñuy toog di zikr ci xadaratul juma lenn lu ci nekk waxuma garantie bi ci monde shahada mais garantie bi ci xay bu mu ëpp doole su ko defee nag loo xam ni jiitu na sa judd bu yàlla dogalee nga dem ba bokk ci ci shahada war nga sant yàlla moo tax jamono ji li fi des mooy yeesalaat suñu diggante ak Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ndax gis nga jullit bi dafa dul bàyyi xel bopp mais bis bu nekk moom ni muy jubloo ci dem julli ji julli suba wala jublu ci dem julli tisbaar wala jublu ci julli tàkkusaan wala timis wala gée mais noonu la amee ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ko topp bu ñu sañoon julli jooju mu tardeel ko bu ñu sañoon it jaamu yàlla bi mu wàññiku te fekk na iblis moo leen yabal fekk na iblis moo leen di yabal yabal leen ci xelu jullit bi jamono ju nekk ñuy yàq xelam pour récupérer bu ñu ko mënalul dara ñu dem di yàq xelu ña ko yilif pour ñoo ñu tourner ko parce que iblis du tàyyi xamuloo bare na ñu mu gañe te ñu foogoon ni tàyyi na wala fu mu ne léegi daanaka dem na yoonam talatu leen fekk na bés bu ne mu dellu si rek yër ka mu doon ka mu doon bëgg récupérer fu mu toll waaye loolu yëpp nag ma nga gën a saware ci bu gisee jeune bu jëm ci yoonu yàlla moo tax ngay gis ndaw buy jaamu yàlla nga jékki saa gis ay xaritam wax ko tolloo goo fenn des na tuuti wala boo demee jàkka ja paa rek nga koy fekk sa moroom nekk fa wala boo fa yàgg toog sax da ngay gàtt fan su ko defee yooyu yëpp ay stratégie iblis la pour génne jeune bi ci diine islaam dugal ko ci diine moom waaw su leen déggalee rek bu demee gis ay mag kese toog ci malaan bi wala mu gis jàkka ji ay mag kese xelam commencé waaw te yàlla ki mu soxla mooy ki nga xam ni mi ngi ci diggu dooleem léegi nag Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif li nga xam ne moom mën na ko jëriñ ruuxu doomu aadama bi mooy jox na ko zikr boo xam ni doy na ko pour defar muy salaatul fatiha xamuloo tey bari na ñu nekk ci xëlwa du ñu génn ay 10 jours ay 20 jours du ñu dem malaan wasifa te xamuñu ni gis nga ki dem malaan wasifa ci suba mu wasifa ngoon mu dem wasifa moo ëpp doole ko nekk ci xëlwa ba 10 jours te génn waaw ndax ma ngay jàng ya allahu ma ngay jàng ya rahman ma ngay jàng beneen tur mais ndax yàlla nangu na la muy jàng wóoru ko te wasifa dès l'instant nit ki toog ci malaan ba su yàlla nanguwul moom la muy jàng sax mën na rus kenn ci malaan bi daal di nangul kooku boole ci ñëpp daal di leen nangu waaw te xadara Cheikh Tijani Chérif munoo toog ci malaan bi te fekk wëli yàlla toogul ci malaan bi waaw ndax bu fekkoon te ni fukki nit la au moins am na ku ñu nangul kurusam am na ku ñu na ku ñu nangul kurusam waaw Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif liy tax du teew ci malaan nit ñiy wër malaan bi ñoo koy def waaw ñiy wër malaan bi ñoo koy def lu nekk nit mën na ko def mu jéggale ko mais gis nga la muy la mu gën a bañ boo gisee téere tariqa bi la ca ëpp yëpp ñu bind ca ni xormaalal wali yàlla yi waaw ak wali yàlla bu mënta doon mooy dañu gis nii bare na luy yàqal nit ci biir tariqa tijaniya fekk na ñàkk xormaal wëli bi ci biir tariqa bi moo ko ko teg bari na luy yàqal nit fekk na loolu moo ko indi ndax borom cër yaa ngi ci am na ñoo xam ni dañuy dem dog sa diggante ak Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani si waaw su ko defee nit ki jël wérd nekk ci tariqa bi guddeeg bëccëg ma nga ca yëngu fekk na jàpp ñu ni enregistré nañu ni moom mi ngi wérdu salaatul fatiha mën na zikr salaatul fatiha pendant ay at lu ne mu daj ko ca te du ca gis benn résultat te résultat salaatul fatiha mooy defar xolu doomu adama bi waaye mooy defar ruuxu doomu aadama looloo tax lu nit di sàkku ci beneen zikr rek mi ngi ci te nag yàlla jamono ju nekk mu jël ay avertissement di ko indi ci monde chahar yi ngay dégg yëpp ñu koy coow éclipse lunaire yi dana am yooyu yëpp ay avertissement yàlla rek la ay avertissement yàlla la ndax jamono ju nekk bëgg na ñu bàyyi xel ni àdduna bii du luy continuer abadan waaw waaw rek maa ngi tooñ mbokk yi ci biti fekk ma gis ñenn ci scientifique yi ci internet ñu ne est-ce àdduna du tukki sax tey ci guddi ndax éclipse ba moo gën a gudd nangam nangam wax waaw may tooñ mbokk yi ne ah kon nañu teel reer rek ndax bu ñuy dem yowmal xiyam fekk reer nañ ba pare <laughs> pour wax la ni léeg-léeg yàlla avertir la te yow yëgoo ni lay avertir lu am solo lu am solo la te lu jar di bàyyi xel ndax ñoom ñoom jàngale naa ko lu dul benn du ñaan muy jant bi muy weer bi benn bu ca nekk mbindeefub yàlla la waaye benn bu ca nekk aussi symbole la yàlla symbole ya mu bind benn bu ca nekk dafay zikr comme ni jamaadaat yi di zikri comme ni rab yi di zikri comme ni garab yi di zikri waaw te kenn ku ci nekk am na mission ba muy dox waaw léegi nag zaman bu ne yàlla dina indi loo xam ni mën nañ ko tuddee woon sax ni prophétie la waaye fekk na dafa am la muy wane ndax éclipse solaire fu mu amee am na am na lu muy marqué ci temps bi éclipse lunaire aussi de même waaw wax naa ko benn mbokk bi ma déggee éclipse solaire totale bi amoon jamono yële aux États-Unis waaw ma ni ko loolu yëpp la muy wane mooy seen économie day daanu dootul jóg waaw mu jaaxal ko mais yàggul bi ñu duggee seen guerre commerciale bi mu ni ma gis nga dugg nañ ci guerre commerciale bu métti fekk na am na lu muy wane waaye du ñëpp ñooy xam dëgg-dëgg tegtal ba lan la ndax du question ni yëpp benn tegtal lañu am bu ñëw ak tegtal la waaw réalité boobu moo ci nekk su ko defee nag bu la wóoree ni yaa ngi ci aaxiru zaman donte dooru zaman sax sa farata jaamu yàlla la war a nekk waaye rawatina aaxiru zaman bu ñu demee ba aaxiru zaman xamal ni lépp luy sa farata mooy dellu si yàlla dellu si yàlla jox ko sa bopp ndax jëmm ji yàlla moo ko ko waaye pour jox yàlla sa bopp il faut nga fexe ba charte yi nga xam ni moo la lié pour borom bi soo waxee mu déglu la nga fexe ba charte yooyu nga taxawal ko daal di koy fonk benn bu ca nekk nga tekk sa kanam bis bu ne nga bàyyi ci xel Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif mi ngi fi toujours wax naa ko ca fas ni moom dëkkul ci espace dëkkul ci temps ci zikr la dëkk tant que nit a ngi zikr mi ngi en communion ak moom mais xam nga lu tax ñu bari gisatuñu parce que créé tuñu place buñ ko mën a gisee problème yi ñoo bare léeg-léeg nit di wasifa waaye fekk na xëy na xel mi benn yoon la nekk ci malaan bi la ca des yëpp xel baa ngay voyage yi guddi ak bëccëg am nga kooku bu gisee cheikh yi mën na ko gis ci voyage yu xëy na fekk na moom nekkul ci malaan bi ndax mi ngi toog waaye bi nekk te yooyu yëpp nag li koy mottali mooy ñi ngay bokkal nga xam ni yàlla tënk na ci ñoom baatin bu tollook fu ñu toog rek ñi nga am communion ak borom waaw loolu moo tax di ànd ak nit ñu baax am solo waaye li des nag nga xam ni tey mën nañ ni bare na ku sonn ci diine wala ku yàlla jéppi moo ko ko indil muy bàkkaar Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani Chérif fexe na ba baatu istigfaar bi ngay jiital ci tariqa bi loolu raxas say bàkkaar ba mu set wecc salaatul fatiha bi ñëw daal di gën a yokk sa pas-pas gën a yokk sa lumière ci sa cofeel sa diggante ak yonent bi laa ilaha illallahu bi ñëw gën a confirmer ni ngay dëggalee yàlla jawharatul kamal nag nga xam ni moom mooy liaison bi dox diggante nit ki ak yonent bi sallallahu alayhi wa moo fi ne pour sauver nit ñi waaw ndax dinañu toll foo xam ne xamuloo wax dootul sauver nit ñaata nit ay waaraate ci senegal rajo boo tijji yaa ngi dégg kuy waaraate mais pourtant dafa dem ba mel ni crise des valeurs dañ ci dañ ci gën a toll waaw tey la jikko yi gën a yàqu waaw tey la pas-pas yi gën a manqué te te tey la waaraate yi gën a bare waaw la waaraate yi gën a bare koon am na problème bu am problème bi mooy ñiy wax ñoo mënul wax nit ndax nit loo koy wax da ko ciy jiitu ba noppi te da ngay dégg nit soññ la ci tarixa bi soññ la ca guddeeg bëccëg te munoo muus ak waane ba gis ko malaanu wasif kooku xam nga bu dee bu dee jeune bu tayel dafay dafay tayel ki lay soññ doo ko gis wasifa suba doo ko gis wasifa ngoon doo ko gis ci xadaratul juma te bis bu ne mu soññ la mën naa am ni sax moo la jox wér loolu lu jara jàngataat looloo tax liy defar nit ki ci digganteem ak yàlla mi ngi fi Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif indi na ko muy salaatul fatih li des nag mooy nit ki pratique pratique bi moo des parce que dès l'instant nga dem ba fésal sa bopp ni yaa ngi ci biir tarixa tijaniya war nañ la mën a xàmmee leeru tarixa tijaniya war nañ la ko mën a xàmmee ndax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi muy samp loolu ci benn réalité rek la ko sampoon muy réalité waskurullaha kasiran laallakum tuflihun waaye réalité ala bi zikrillahi tatmainul qulub kon dafay dellu ba yëg ni lépp lu nit di sàkkooti ca zikr ba lay dellu si waaye ci zikru salaatul fatiha kon nag li nga xam ni mooy des mooy nit ki digganteem ak yàlla nan lay fexe ba bu yàlla jéppee ñu bari ci sahaaba yi moom yàlla du ko ci boole te tey gis nañu ni ni aaxiru zaman mel waaw gis nañu ni problème yi mel ci àdduna waaye gis nañu aussi ni jullit yu bari dañoo tumuraanke te li leen tumrankeloo mooy ñàkk xam seen diine waaw ñàkk xam seen diine ndax ku ci jàmm yàlla ñetti yoon rek yàlla teg la benn nattu nga fàtte ko waaw ku ci fonk yàlla guddi ak bëccëg nit ñëw proposé la alal nga bàyyi fa yàlla dem wuti alal ji bare na tey ñu ñu yàq seen diine fekk na alal bi ñu leen proposé moo tax ñu yàq seen diine mais problème yi ngeen fiy dégg yëpp ngeen defe ni lan la ay loge maçonnique yi franc-maçon yu yore mais ay xaalis la ñuy proposé nit ñi moom lañ leen di proposé ay nit ñu am influence ki yeneen waaw ay pouvoir yoo xam ne pouvoir iblis la su ko defee nit ki bàyyi diine dem ci ñëw waaw te su ko defee ñoom amuñu diine te ñoom xam nañu fa ñu jëm waaw ñoom amuñu diine te xam nañu fa ñu jëm yow mi amoon diine nag nga bàyyi sa diine daal di dem ci ñoom ñu dugal la ci sànkuti ndax dañ lay sànk yàlla kenn mënul nekk ci lu ñaaw abadan ba loolu di am réussite door bi mën na am réussite waaye mujj ba ci sànkute lay lay nekk ndax ñoom seen mission principal lenn rek la mooy fukk fu leer jóge rek ñu ñu ñu fexe fay ko def fa lëndëm ndax leer moo leen di sonal kon lu jar di bàyyi xel la te tey ñu bare jiital nañu àdduna ba fàtte nañu loolu su ko defee nag pour dellu ci source bi source bi lenn rek la mooy ku ci nekk fexe ba pas-pas bi nga xam ne am na ko ci diine ji mu fexe ba pas-pasam dëgër te pour pour sa pas-pas dëgër dara mënu ko dëgëral lu dul zikr mag ñi dañ daan wax bu ñu la joxee zikr pour lan la mooy pour mu defar sa jukk Cheikh El Hadj nit mën na mës na ko ñaan ni ko dama bëggoon nga may ma benn portrait su mënoon nekk ndax damay ñibbi te te yaa may waar waaw ma ragal su ma la gisul ma delluwaat ca la ma nekkoon Maodo ni ko soo bëggee portrait dinaa la jox 500 salaatul fatiha de ko def suba ngoon doy na portrait ndax mooy doon sa sëriñ moo lay gindi waaw boo bëggoon def lu ñaaw salaatul fatiha bi moo lay wëlbati def loola lu baax waaw kon da ngay yëg ni salaatul fatiha lépp loo xam ne réalité la waaye lépp loo xam ne day dellu ci di yokk pas-pas mi ngi si biir ndax zikir la bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam garanti te tey bu ñu xoolee ci côté salaatu ala nabi muy julli yi ñuy jullee ci yonent bi mais benn bu nekk am na salaatul ummi yi mi ngi fi te mën na def nit wali ci lu gaaw waaye xam nga lu tax salaatul fatiha am valeur boo xam ni beneen salaatu ala nabi amu ko mooy dañu ko garanti yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko garanti teg ko ci loxo Mawlaa Cheikh Ahmad Tijani Chérif ndax yëgoon na ni axiru zaman bu ñu ci tolloo dina dem ba lëndëm pour dindi ko dina jafe waaye aussi pour defal sa rox dana jafe mu indi ko pour taalibe yi di ko utiliser pour mën a defar seen rox su ko defee nag ku ci nekk rek am ci ndigal daal di tegu ci li neex yàlla mu ngi ci yoon li ci des nag mooy xam ni yoonu yàlla du yoon boo xam ni lépp ay yomb loolu moo ci des nag ndax mooy mooy indi handicapé ñu bare li ci des mooy xam ni yoonu yàlla ak nattu ñoo ànd yàlla dina la nattu dina la nattu ci nit ñi weddi la dina la nattu ci nit ñi di la diingat dina la nattu ci ñàkk dina la nattu ci feebar dina la nattu ci lu nekk waaw mais lépp rek day xool ndax gëm nga wala gëmuloo waaw bis boo demee ba saalit rek mu xam ni yow gëmuloo woon bis boo demee ba saalit mu xam ni yow gëmuloo woon waaw su boobaa marte ba ba nga doon wut doo ko am maa ngi koy nettali benn mbokk ndeysaan fekk mu ñëw rek di ma jooytu ci benn nattu ma nettali ko histoire yu yonent yàlla Moussa ak mbokk mi bëggoon àgg ci yàlla waaw bi ma noppee mu ni maa ah, bëgg naa àgg ci yàlla mais nag bëgguma façon boobu ndeysaan ndax dama ni ko Moussa alayhi salaam dafa romb benn nit mi ngi toog mu romb ko nit ki ni ko man de Moussa lu ma bëggoon comme yow yonent nga nga ñaanal ma ma àgg ci yàlla ndax man yàlla bi ngay woote rek laa bëgg waaw fekk Moussa ngi ànd ak ñaari nit Moussa ñaanal ko ni ko yàlla nga àgg ci yàlla waaw ñu dox dellu seeg ña mu àndaloon mu tourné moo ki taalibeem romb ko fekk gaynde fàdd ko waaw gaynde fàdd ko lekk ko ba xaaj ko nii ah taalibe yi jaax leen yaa yow Moussa yonent nga te loo ñaan yàlla def ñaanal nga kii mu àgg ci yàlla ñu ngi séentu nii lu ne yàlla dana ko ko jox ñu fekk gaynde fàdd ko mu ni waa àgg na ci yàlla parce que lii moo doon tarbiya pour mu àgg ci yàlla mooy gaynde fàttu waaw mbokk mi mbokk mi ni ma bëgg naa àgg ci yàlla nag mais boobu moom boobu sàn waaw ma ni ko ay escalier rek la day sàgg ma ni ko ay escalier la yàlla léeg-léeg la bëgg àggale ci boppam mais faw mu jaare la li ci benn natt bu metti waaw bu natt bi jeexee mu àggale la ci bopp parce que yoonu yàlla yombul waaw yoonu yàlla yombul te kenn ku ci nekk dafa am luy tax yàlla àggale la ci bopp looloo tax nag la ci sëriñ Babacar si daan faral di wax rek Mawlaay Cheikh Ahmadou Tijani Chérif fi mu mënee Cheikhu Tarbiya yëpp mooy dafa indi li nga xam ni ci zaman dafa méttiwul parce que bu nit ñi daan jaamu yàlla da ngay gis koo xam ne pour mu àgg ci yàlla ay sagar lay sol pour mu àgg ci yàlla ci àll bi lay fanaan di lekk lu naq di di woor guddeeg bëccëg Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif fexe ba nit mën a jël tarixa tijaniya di zikr àgg ci yàlla waaw ci kaw mu respecté wasifa respecté lazim respecté qadaratul juba ak condition tariqa waaw loolu dem ba liaison bi doxoon ci moom diggante xayba ak shahada voile ba nga xam ni moo ko doon empêché mu gis xaybu ñu dindi voile lu muy dundati mu doon xàqul yaqin waaw lu muy dundati loolu doon xàqul yaqin te gis nga nit bu àggee foofu soxla na kilifa gu ko dimbali tekk ci yoon mais soxlawul sëriñ bu ko sona ñu bare nag loolu la xamul nit bu àggee foofu bu demee ba mu leer ni ko digganteem ak yàlla ma ngi koy dox na mu ware tariqa bi responsabilité ba mu ci am man kay koy dox ma ngay jàng salaatul fatiha ma ngay teewe malaanu wasifa ma ngay nekk malaanu qadar ma ngay def lazim soxla na ku ko jox ay dog yu mu zikr mais soxlawul sëriñ bu ko sonal ndax léeg-léeg nga dem ci kilifa pour mu defar la waaye finalement ca tool ya la lay yónni ca teen ba ngay duy nga nekk ca matt yi ba dootoo wasifa ji dootoo julleeti waxtu dootoo sax talati woor weeru ko su boobaa dangay laaj si rox yow li ngay tarbiya lan la waaw lu jar di bàyyi xel la te mag ñi jàngale nañ ko mag ñi jàngale nañ ko alhaji abdul aziz si daba daan na ko wax ni kilifa gu lay defar mooy kilifa goo xam ni fu waxtu julli jotee mun la bàyyi la ngay def dem julli ci fu wasifa jotee mu ànd ak yow dem toog ca malaan ba fu sa wér du jotee boo ko bëggee négliger mu fàttali la waaw waaye nee na koo xam ne toujours lam lay fàttali rek mooy sama compte bancaire ko xool naa ko 2 millions ci ne dama bëgg ngeen dem ci yeneen 3 millions muy 5 <laughs> ak sama tool ba nawet bi ñëw na dem ci bul bul bu fa génn ndax ndigal la nga nekk ci rek guddeeg bëccëg fàtte sa njaboot fàtte sa waajur fàtte soxna sa nga war a dundal fàtte ñëpp am na ci loo xam ne jaru ko ndax yàlla bu mayee nit ba àggal ko ci boppam nit que li ko yàlla jox dafa yëg ni loolu du pour moom pour mission la su ko defee ku ñëwati mën na la ci xett waaw te salaatul fàtte mën na xettali ku ne waxuñu nag tarbiya amul tarbiya am na waaye dafa am yoo xam ni dañu ko tuddee tarbiya yu xaw exagéré wu ci Sénégal muy jël nit rek teg ko ci benn béréb toppatoo wootoo diineem toppatoo woo tariqam toppatoo woo dara ci moom lu dul intere ba nga xam ni moom ma ngi koy def rek di ko jëmee sa kër loolu lu jar di bàyyi xel la te loolu laay wax ni jeunesse bi war nañu yewu ci côté boobu waaw war nañu yewu ci côté boobu yàlla may na ku nekk moom laa Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani Chérif joxe ne cër bu ne waaye li may wax rek boo góorgóorloo am pas-pas am yitte am yéene ci tariqa bi cër bu nit mën a am ci tariqa bi xanaa muy cëru xutbaani yi nga xam ni kenn mënu fa àgg mën nga fa àgg waaw xanaa muy cëru xutbaani yoo xam ni seddale nañu yee ñuy seddale ba noppi waaye lu dul loolu mën nga fa àgg waaw ndax nit bu sa baatin selle sa digganteeg yàlla sa digganteeg yonent bi sa digganteeg Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif dafay mel ni dootul xay bu sahaada ci yow te bu boobaa loolu laaj si kurus mu tontu waaw loolu laaj si kurus mu tontu la loolu tax yonent bi digle woon istiqaara istixaara ba dépendrul woon rek ci bëgg nit xam dara jamono ju nekk muy def istixaara pour xam ko dafa dépendre ci ni nit bu amee baatin bu sell mën na diisoog yàlla mën na laaj yàlla yàlla wan ko réalité ndax tey bare na nit ku bëgg lu baax dem laaj nit ña nit ña gën ko sànq nit ña gën ko sànq na ko xakim bu doon nettalee rek ni na bi mbokk yi dawee ñëw ni ko dañuy gëm yàlla yi Moussa ndax Moussa na mu def ndax mu na mu def yat ba mu sànni yat ba nekk jaan lekk gaynde yëpp waaw ñu daw ni firaaw na dañuy gëm mu ne lu tax ngeen di gëm te tàggoowu leen waaw góor gi di nettali ne am na ñoo xam ne ku leen tàgg doo gëm yàlla doo gëm nit ku baax waaw ndax boo leen tàggoo rek ñu ñu ñu défier la waaw te ñooñu bu ñu tàggoon firaaw na du ñu gëm mukk waaw kon bàyyi xel sa bopp farata la su ko defee rek ñu ciy bàyyi xel jamono ju nekk waaw di bàyyi xel suñu bopp jamono ju nekk nii ñuy dundee bu ñu ko continuer dund kenn duñu gën a nekk ci sécurité ndax xam nga kan mooy tiit moo tax da ngay gis ñu bari léeg-léeg yi wax leen dara ñu tiit duñu nelaw kuy tiit mooy ki amul kilifa gu ko mat waaw mais boo amee kilifa gu ko mat lépp ngay xam lépp ngay jamono ju nekk da ngay da ngay xam na ngay nattee jamono lu nekk da ngay xam lu ko waral lan la ndax tey lu doon diine génne nañ ko ci cadre diine gis nga bu ñu daan xool ay éclipse solaire bu amee éclipse lunaire bu amee mais boo demee même ci téere yi bind nañu jaamu yàlla yi ci yonent bi daan def ak yu mu ko daan joxe mais gis nga tey bu amee dañuy wuti ay verre de lunette pour seetaan ko ah xanaa xamuloo ne am na jeunes yu dem ba defe ni sax loolu laa jul jaamu yàlla laa jul zikr te yonent bi dafa daan wati ñuy zikr ñu ciy jàmm yàlla ñu ciy ñaan ndax yëg nañu avertissement la mais yëg na ni am na loolu la muy marqué mu bëgg nag mu doon lu bénéfique ci monde musulman bi mu woote ay zikram woote ay julli woote ay ñaan waaye tey da ngay gis bu ñu ko prédire ba pare dañuy wax kuy jaay lunettes yi ak ñaata la koy jaayee pour ñu mën ko dem di seetaan waaw xam naa noonu la ñuy seetaanee ba le début de l' waaw di seetaan ba le début de l' apocalypse xam naa bu Insa ibnu Mariam sax jógee ci kaw suuf di dell xam naa am na ñu koy filmer di seetaan ba mu dem nag géej yi jug safara yi jug ngelaw yi jug su boobaa nag nit ñi di daw te dootuñu xam fu ñu jëm waaw fekk yàlla décidé na ni day jeexal àdduna waaw kon nag su ko defee rek ku nekk bàyyi xel sa bopp te bàyyi xel sa bopp mooy ku nekk taalibe Mawlaa Cheikh Ahmadou Tijani Chérif la jiitu mooy na nga am cofeel bu mot sëkk ci Cheikh Tijani Chérif am cofeel bu mot sëkk ci ay xalifa ba noppi xam la nga am lan la guddi ak bëccëg bu ñu ñëwee fekk la ci yàlla ñu yàgg def taalibeem xàqan muy ànd ak moom ci zahir ak ci baatin di ànd ak moom abadan ba biir illi yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi